yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ne may nañu ba ñu wootee dialogue bi ngeen wuyu si ndax Sénégal moo fi nekk salle bi boo ko xoolee mooy Sénégal moo fi toog pàcc boo mënti jël di nga am ñi ko représenté kilifa diine yaa ngi fi kilifa aada yaa ngi fi parti politique yaa ngi fi syndicat yaa ngi fi société civile a ngi fi non aligné sax ñi nga xam ne ñoom féetewuñ fenn sama gars ñoom dama leen fan parce que ñoom géré lañu dañu assumer seen bopp ñu ngi fii ak ak nag euh, vraiment ñi nga xam ne xëy na société civile lañu waaye maanaam ñoo xam ne faruñu ci kujjee mais dañu fonk réew mi ba ñu gisee ku mel nu madame Marie-Angélique Savané taxaw si dialogue bi ku ne xam jaar-jaaram ci wàllu politique ak ci wàllu liggéey mooy nuyu suñu mag suñu nijaay Landing Savané Euh, di ko suñu ñëwee ñoom mën a bokk ci dialogue bi déjà depuis 2019 pour luy jëmale Sénégal kanam la du pour président la République wala wala keneen mais lan mooy jëmale suñu réew kanam parce que foofu lañ toll am na fu réew di toll faw nit ñi waxtaan xool li ñuy jàllale parce que àdduna moo moo doy waar suñu ñu toll nii foo gis jafe-jafe faam Ukraine lay jóge ak Russie tey jii si Russie si boppam ay tooxi dunaa nga fa biir Russie diggante armée beeg ay ay waa Wagner pour vous dire adduna bi moo doy waa te nit ñi yàq moo leen gënal defar te réew bu demee ba am koom rawatina pétrole ak gaz bu ñu moytuwul danga nga gis ñu jóge ci biti wut ñu leen toogal ci biir pour taal réew mi su ko defee waa réew mi lan lañu am ci alal jooju dara duñ ko si am lu dul ay tookee kii leneen donc bu ñu tolloo foofu nag war nañ mën waxtaan looloo waraloon ma woote dialogue national président rek mënul dialogue ak boppam wala ak ñi mu àndal loolu du dialogue